pouvoir temporel moo ko mën. ak bi. njaboot bi. gannaaw ba bi ñu fi def. ba ñu gërëmee président ci liggéey bi la boo xam ne ku ne mën na cee teg sa loxo. waaye li des bari waaye li des bari bu ñu defee benn. bu ñu defee benn. des na fukk bi ci njëkk. bi ci njëkk. mooy. mooy. dund bu cher. dund bu cher. monsieur Amadou Ba. monsieur ñëw ngir déglu. da ngaa ñëw ngir déglu. doléance say njaboot. doléance say njaboot. dund gi. dund kër yi nelawatuñu. borom kër yi nelawatuñu. ku amoon téeméer. ku amoon téeméer. di ci faj sa soxla. faj sa soxla tey boo yóbbee junni doo am genn wàll doo am genn wàllu la nga daan am kon ñu ngi lay ñaan kon ñu ngi lay ñaan lu geestu lu geestu boroom kër yi boroom kër yi wàññi leen charge yi wàññi leen charge bi ci des bi ci des ku nekk ci réew mi gis nga ku nekk ci réew mi gis nga ko tiis nga bopp diis la bokk suñuy njaboot suñuy njaboot ñu ñëw ci ñun ñu ñëw ci ñun guddi ak bëccëg guddi ak bëccëg ñu ko jàmbat di ñu ko jàmbat kon bu ñu amee occasion bu mel nii kon bu ñu amee occasion bu mel nii faaw ñu gaaral faaw ñu gaaral leen mooy immigration bii xew ci réew mooy immigration bii xew ci réew suñu doom yii di dugg ci gaal yi di dugg ci gaal yi di yëg ci montagne yi di yëg ci montagne yi dara di waralu ko te dara waralu ko am lu ñu war a faj lu dul am lu ñu war a faj te amuñu ko ñuy jàmbaar. ñuy jàmbaar seen i wayjur di sonn. seen i wayjur di sonn. te amuñu luñ leen teral. te amuñu luñ leen teral. ñooñu ñooñu. soxla nañu ndimbal. fa ñu jëm. fa ñu jëm. ay immigré lañ fekk. ay immigré lañ fay fekk. ñii dañuy dem di waxtaan ak ñoom. ñun ñii ñoom. ñoom ñëpp seen yaakaar seen bëgg-bëgg. ñoom ñëpp seen yaakaar seen bëgg-bëgg. ñibbisi ci réew mi mooy ñibbisi ci réew mi. ba man fee dund dund ko tey. te mënuñu te mënuñu ko. am na ñu ko jéem. am na ñu ko jéem. waaye dañoo mujj dellu. loolu itam monsieur le premier ministre. loolu itam monsieur le premier ministre. Euh, tiis la ci réew mi. tiis la ci réew mi. bëgg nañu ku ko saafara. bëgg nañu ku ko saafara. ñetteel ba. ñetteel. te dama cay yem rek ndax mënuma lim lépp. te nee na da cay yem rek ndax mënta lim lépp. mooy soxla nañu justice sociale. mooy soxla nañu justice sociale. ndax ndax réew. justice au service de la vérité. justice au service de la vérité. moo ko mën a yokk. moo ko mën a yokk. dóor doom. dóor doom. làq doom. làq doom. bokk na ci liy indi déséquilibre. kon nañ ci góorgóorlu bu baax. kon nañ ci góorgóorlu bu baax. bokk na ci tiisu réew mi. bokk na ci tiisu réew mi. am na kilifa bu mag ci jamonoy tubaab. am na kilifa bu mag ci jamonoy tubaab. bu ñëwoon ci maam Cheikh Mbaye. bu ñëwoon ci maam Cheikh Mboy. borom kër gii borom kër gii. di sàkk ci moom ñaan. di sàkk ci moom ñaan. muy ngelaw muy ngelaw Diouf. ngir bëggoon ngir bëggoon. jot réew jot réew. waaye ñaari baat rek la ko wax. waaye maam Cheikh ñaari baat rek la ko wax. ne ko na fexe. ne ko na nga fexe. ba may ñu jàmm. ba may ñu jàmm. ñu jaamu yàlla. ñu jaamu yàlla. waaye na nga góorgóorlu. waaye na nga góorgóorlu. ba baadoole yi. ba baadoole yi. seen coono jeex. loolu. loolu ëmb na lépp ëmb na lépp jàmm. jàmm wax nga ko léegi si discours mu amul dëkk bu mu am mën la am développement mënul am justice sociale mën la am justice sociale mënul ci biir néeg bi ci biir néeg bi sànq yaag sëriñ bi wax nga fa am solo wax nga fa disparité bi am mooy disparité bi am ci ñi am ci ñi am ak ñi ñàkk ak ñi ñàkk te ñi ñàkk te ñi ñàkk gis ni gis ni am amu ñeneen ñi am amu ñeneen ñi ci ëpp li ci ëpp teguwul ci yoon. teguwul ci yoon loolu day indi frustration. loolu jar naa saafara. loolu jar naa saafara. ñi ngi ñaan. ñi ngi ñaan. suñu borom bi dara tëwul. suñu borom bi dara tëwul. yaakaar ak yéene ji nga am. yaakaar ak yéene ji nga am. ci réew mi ci réew mi. te mu gën ci réew mi. te mu gën ci réew mi. yal na ko sama borom mett na ko ci dara borom kër gi. borom kër gi nag. borom kër gi nag. nit boo ko bëggee xam. nit boo ko bëggee xam. te fekkee woo ko. seet li mu fi bàyyi. da ngay seet li mu fi bàyyi. dinaa ci tudd ñett rek moom ci boppam tudd na ko. nee na dana ci tudd ñett rek yow sa bopp tuddoon nga ko. maam Cheikh Ahmadou Kabir. maam Cheikh Ahmadou Kabir. xam na ne kooku géey monsieur le premier ministre jóge. ku nekk xam na ne kooku géey monsieur le premier ministre jóge léegi. da ko sàmm. da ko sàmm. taalibeem la. taalibeem la. turandoom la. turandoom la. doomu boo xam ne. doomu boo xam ne. bi mu koy yebal. bi mu koy yebal. dafa nekkoon. dafa nekkoon. demal kokki. demal kokki. nga jàngale. nga jàngale. alquran ku ñëw ku ñëw na ko jàngal ngir yàlla na nga ko jàngal ngir yàlla xàmmee wuloo xaadir bul xàmmee ne bul xàmmee laayee bul xàmmee laayee xàmmee murit bul xàmmee murit bul xàmmee tukulóor bul xàmmee tukulóor xàmmee wala bul xàmmee ku ñëw ku ñëw jàngal ko ngir yàlla jàngal ko nga la nekk ci ci ci doom gis nga nekk ci doom kenn du ca fay dërëm kenn du ca fay lépp moo ko yoroon boppam loolu yàlla loolu mooy jëf ngir yàlla benn bunt loolu benn bunt la ci buntu kër maam Cheikh Mbaye. ba ko ñaareel. ba ko ñaareel. te ñëpp xam ko.